bari seede ci moom démb mooy am ko moo gën ñàkk ko ci biir réew tatuwaat leen ko bi ñuy dem di ko yóbbu invitation daf koo wanaat ñu di kurfeel détermination mu bëgg son excellence bi Sokhna Sall dana day awa ñetti ngeen ñi ngeen àndal lu ngeen prévoir fekk ci polo politique bi bu ñuy dem di bëgg a yóbbu avance mu ne paye leen avance woo pierre logistique yi bâche yi chaise yi moquette yi tente yi sonorisation bi lépp président Macky lay ko fay passe en une fraction de seconde am nag engagement bu mag son excellence ci détermination tolloon man sa ay jamono ñu bari ñeme wu ñëw jóg waaye ku ñeme wala nga bëgg a attaqué boo xoolee Massa yi delluwaat ginnaaw bëgg président Macky Sall gerte ba kanam gerte def ci jàmbaaram def ci dooleem ànd ak moom engagé wu téye li mu téye doon doomu Thiès li ngay waxee dëgg monsieur le ministre bu fekkee commencé nañ ànd ko parce que ñett ko ak waat leen bu baax le bureau le président de l'ARN université de la République conseil social monsieur le président moomu ñu am Massaly bu ñu amee ba pare. Gaynde Njaay Gaynde Njaay Massaly Palanteer fii doo fi ñaar. asalaamaaleykum. Assalamu alaikum Thiès asalaamaaleykum alaikum Cité Balabé Mangi grand frère monsieur le ministre les directeurs généraux ak et militantes de la coalition Bernard Bokk yakar monsieur le ministre mangi Monsieur, ma sœur amay mangi maa munu woon ñàkk ñëw parce que ci génn àdduna muy le sous-préfet sama promotionnaire de classe la woon ñoo jàngandoo sëy ba sënd dëkkandoo aux doon nekk guddi ak bëccëg ba barki démb rek moo si mujj muy weekend bi passé donc falaa nekkoon ba heure bi dama ne woon sax du ma jël kaddu mais munumaa jël munumaa ñàkk ba ñu jël kaddu ngir féliciter suma jigéen aw mbay ngir engagement am attachement am ak abnégation bi nga xam ne am na ko derrière son excellence monsieur président la république Macky Sall góor góor la mun a doon nit nit rek la mun a doon naam la leen président Macky Sall defal rëy na ngeen taxaw sargal ko ak li ngeen taaroo nii ànd kook suñu taxaw pour delloo ko njukkal kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu wax la may wax rek lu ndaw la mooy l'heure est à l'unité encore une fois pour la consolidation de toutes les forces vives de la coalition bokk Benno Bokk Yaakaar Macky Sall li war def na ko la Sénégal def na ko ba pare tey li traduire la vision éclairée de son excellence monsieur le président de la République la coalition jiital nañu la personne du premier ministre Amadou Ba nañ leen ko nous mu doon lu gëm ndax bilan wu président Macky Sall kenn na table wu ko ci àdduna démocratie Sénégalite. it wër na àdduna ngën na mais buñ jubalee bokk ndey bokk baay bàyyi suujante yi bàyyi xasante yi ak waxante yu ñaaw yi ak kuubaay ñuy defal suñu biir suñ ko bàyyee fu ñu bëgg a dem danañ fa dem fu ñu bëgg a suñu candidat premier tour suñu borom dañu may ndam pour ñu dem fa parce liggéey nañu li nga am nañ ko parce que les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes donc laa amoon li may wax monsieur le ministre vraiment je m'en excuse mënu ma ñàkk bañ jël kàddu parce ngi lay féliciter di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñu defal jàmm ba may ñu dem ci yi dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci avec plus de 65 pour cent porter